wa yaqulu seykh ahmadul xadim radiallahu taala anhu wa arda waqir kabirahuma warham saxiirahuma waraaxi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa fa taqwallahi subhana wa silaahu lwaxid allazi yastatihu lmumin an yuwaajaha bihi aya quwatin yastatihu an yujaabiha biha aya hassatin maa saabita alxadawaat wa yaqul seykh ahmadul xadim radiallahu taala anhu wa arda fi baadi wasayaahu man araada an yuxtiyahu llahu tabaraka wa taala ma araada fi lxaali walmaal falyamtasila amra wa man araada an yamtasila amra falyanwi wa niyatu taquudu ila limtisaal wa man araada an yakfiyahu llahu tabaraka wa taala maa yaxaafu wa yakrah falyajtaniba nahya wa man araada an yajtaniba nahya falyanwi wa niyatu taquudu ila lijtinaab wa niyatu saaliha an tanwiya fiala kulli amrin amaraka allahu taala bi taaati wa tarka wa tarka kulli ma nahaaka anhu bi xayri xaflatin fa inna allaha tabaraka wa taala yaqul wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja fallahu tabaraka wa taala fi kulli makanin bi ilmihi wa mulkihi wa qudratihi fattaqihi bil imtisal yuhtika ma tamanna wa bil ijtinab yakfika ma taxaafu wa tahrub minhu wala takun min alxaafilin allahuma ahdina ila sawaa'i siratika almustaqim allahuma ahdina fi man hadayta wa tawallaynaa fi man tawallayta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 nangoo nekk ay jaami suñu boroom yu doyoo de yu yoo xam ne mënaluñ seen bopp dara amuñ dara loo xam ne mën nañ koo defal seen bopp lu dul ne dañuy delluwaat ci suñ borom looloo tax ñuy dellu tey taxaw tàllal suñuy loxo ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy boroom ak man te mooy boroom sañ-sañ mu defal nu ci xéewalam ak maanaam ak kàttanam ba Seex Mamadu Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa yàlla bàyyi ko fi lu yàgg may ko wér ak tal ak kàttan dëgëral ko musal ko ci mépp ndog ak bépp pakk ba lépp loo xam ne yéene na koo defal lislaam ak Serigne Touba mu def ko defe ko nu kawe njottam tañ ànd kook moom te daje cee ngërëmul Sëñ Touba ak ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu itam ñu tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan mooy borom man-man mooy borom sañ-sañ mu defal képp koo xam ne say jéego mooy taxawal lislaam ba kàtt mu kàttanal la may la wér ak tal musal la ci bépp ndog ba lépp loo xam ne yéene nga ko def ci lislaam nga def ko ni kawe sa njort ginnaaw loolu nag ñu war a dellusiwaat tey ci loo loo xam ne tàmbali woon nañ ko ca fan yee mooy xam ne lislaam day lim nu sant mooy nañ nekk benn nekk benn googee nag li tax mu sant ko sant nu ko moo di ne dañoo dañoo doon ay doomi aadama yoo xam ne suñ borom dañoo digal mbir ñu war koo def te mbir moomee mu ñu digal ñu war koo def muy tax muy defar àdduna defar àllaaxira daf na koo tënkal daf na koo na koo defal nag dañu daf na koo defal te fi mu ko tënk mu doon loo xam ne mooy ay waxtu te waxtu yooyee ñun xamuñ nu mu toll kon mu mel ni nag ngir ñu mën a def li nga xam ne moom leen suñu borom sant ci defar defar àdduna defar àllaaxira faw ñu nos suñ bopp te bu ñu nosee suñ bopp itam ñu nekk ci biir nos boobee di dox ci biir nos boobee ñu xam ne nag nos boobee ngir mu mën a am faw dañuy nekk benn loolu moo tax suñ borom digal jullit ñi nañu war a ñu war a nekk benn loolu itam moo tax ba lépp loo xam ne war naa doon luy loo xam ne day indi ay ñugu-ñugu wala ay taq-taq wala muy indi ay gàllankoor ci li nga xam ne moo tax jullit ñi war a nekk benn suñ borom da caa teg ay bugal yu tar ngir bëggul dara loo xam ne mooy yàq li nga xam ne mooy bennoo gi nga xam ne moo lay war nekk loola nag tax na ginnaaw bi itam mu xamal nu ñu ne li nga xam ne nag boo mën a dëgëral bennoo googee mën koo taxawal ba dara du ko mën a yàq moo di ragal yàlla képp mooy ñuy yëg suñu boroom yëg suñu borom ci lépp loo xam ne ànd gi ñuy ànd ñu xam ne suñu borom képp tax waaye leneen lu ñu boole lu dul suñ borom lu mu mën a doon rek mën nañoo tàqale lu ñu boole leneen lu dul suñ borom rek mën nañoo takkale ndax bu dee am am ka ka ko séqal am am baa tax am am boobay mën na koo ñàkk mën naa mën naa dem itam ba jóge fi bàyyi ko fi kon bu mel ni kon képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom li nga xam ne moo la war a mën a dëgëral seen diggante mooy ragal yàlla képp di yëg suñ boroom ne xam ne kii ki la booleeg moom mooy suñ borom te suñ borom moom du fi jóg te xam na lépp te dara ump ko kon nga xam boo de boo yëg boo amee yëg-yëg boobu loolu mooy tax ba li nga xam ne moom ngeen seq waxtu ne nga di ko bàyyi xel ndax xam ne ki lay sa ki nga xam ne moo lay mooy mooy mooy sàmm yëg-yëg boobu li war a nekk seen diggante mooy suñu borom te dara ump ko dara réeru ko kon mu doon mu mel ni nag looloo tax suñu borom bi nga xamee ne xamal nañu ne ay mbokk lañu wax nañu li nga xam ne nag mooy tax mbokk googee ñu mën koo dëgëral mooy fa taqullaha laallakum wa taqullaha laallakum turhamun mu mel ni kon dafa dañoo bëgg a xamal ne mbokk googu nga xam ne mu naa bëgg mu nekk seen diggante day lenn rek moo ko mën a dëgëral moo di ngeen teg ko ci suñ borom ngeen séq ko ngir suñ borom loolu moo tax itam suñ Seex Seex Ahmadu Bamba di wax ci benn euh, bayitam di wax ne doomu aadama ju mën a doon bu la magee nee na na ko wekk bu dee ku ndaw na ko yërëm te loolee ngay yërëm googee nga di ko def ngay def ak moom wala yërmande googee nga xam ne moom wala nga wa wageen googee ngay def mag ma wala yërëm joogee nga xam ne moom ngay def ndaw ga du doon ne danga koy xool ci la ndaw ndaw ndaw la séq ak yow du ne da nga koy xool ci li mag ma séq ak yow waaye da nga koy xool ngir diggante xam ne kii kat mbindeefum suñ borom la te suñ borom a teral te suñ borom lu mu teral lu ne war naa ko mën a teral man itam mi nga man mi nga xam ne ab jaamam laa loola rek mooy tax ba li war a nekk seen diggante nekk ca waaye bu bu dee da koy xool moom doomu adama ji faaw rek mën naa def loo xam ne mën naa tax ba wegal ga nga xam ne moom nga ko waroon a wegal wàññiku wala yërëmane joojee nga xam ne moom nga ko waroon a yërëm wàññiku ndax doomu ak doomu aadama faaw mu fecc moom kon nag faaw da koy teg ci fu dëgër foo xam ne mooy tax wegeel googee ak yërmane joojee mën a sax tam foofu mënoo koo teg fenn ci lu dul ragal suñu borom loolu moo taxoon Sëriñ Tuubaa di ñu xamal ne taw tawxiid day ñaari mbir la ñaari dañ ko séddale mu doon ñaari mbir benn bi dafa doon loo xam ne danga koy wax ci sa làmmiñ loolu nag wax ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah doomu aadama ju ne mën na koo def waaye nag yëg-yëg bi nga xam ne nag moo war a nekk ci yow nga xam ne da ngay yëg waxtu wu ne la nga waxoon ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah doon yëg-yëg boo xam ne da nga koy dund loola mooy tax ba li nga xam ne moo war a dox sa digganteeg doomu aadama ju nekk nga mën koo doxal ni nga xam ne ni nga ko war a doxalee waaye bu dee da ngay xool doomu aadama ja ak ku mën a doon rek da nga ca gis loo xam ne mën naa wàññi sa digganteeg moom ci li nga xam ne moom nga ko dencal ci wegeel wala ci li nga xam ne moom nga ko dencal ci yërmande kon loolu moo tax ba jéem ragal yàlla suñu borom képp moo doon li nga xam ne moo mën a moonu mën a sa saxatal moom moo mooy li nga xam ne moo mën a saxal suñu diggante mooy li nga xam ne itam moo mën a meññeel suñu diggante mooy li nga xam ne itam moo mën a tax ba ni nga xam ne moom lañ war a doxe ñu di ko doxee kon ñu war cee góor góor bu baax mu mel ni nag Sëriñ Tuubaa dafa kon comme dañuy wax ne ragal yàlla mooy topp ndigal bàyyi tere ragal yàlla mooy topp ndigal bàyyi tere mu di ñu jàngal nag nan la ñuy def ba topp ndigal moomee ñu mën caa sax ak nan la ñuy def ba tere yooyu nga xam ne moom la suñu borom tere di mën koo moytu ni nga xam ne ñu ko war a moytu mu ne nag boo bëggee topp ndi na nga xam ne topp ndigal day mooy li nga xam ne moo lay may lépp loo bëgg ci àdduna ak lépp loo bëgg ci àllaaxira ndax mooy ragal yàlla te yàlla moo wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib waxaat itam wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra waxaat itam wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuhsin lahu ajra mu mel ni kon li nga xam ne mooy mën a tax liñ bëgg ñu am ko ci àdduna ak alaxira mooy ragal yàlla képp waaye amul leneen loo xam ne mën nañoo dimbale ba li ñu yéene wala ñu bëgg ko ñu mën ko am ci lu dul kaw ragal yàlla nan nag ragal yàlla googee nag munta feeñee ci lu dul topp ndigali suñu borom ak moytu ay tereem mu ne nag ngir nga bëgg mën nga mën ngir nga mën a topp ndigali suñ borom moo di ne da ngay def li nga man ba noppi ànd ci ak yéene li nga xam ne itam mooy mooy mën a tax nga mën a bàyyi li nga xam ne moom la sa tere mooy moom la suñ borom tere moo di ne da def li nga xam ne moom la suñ borom sant ba noppi ànd ci ak yéene da def li nga xam ne moom la da bàyyi li nga xam ne moom la suñ borom tere ba noppi ànd ci ak yéene mu bëgg noo xamal nag yéene mooy lan mu ne yéene mooy bu dee lu baax da ngaa bëgg topp digal suñ borom topp googee moo di da ngay def lépp loo xam ne suñu borom digal na la ko te te nga xam ne sa sa kàttan may na la ko amul dara lu du war a dox sa diggante nga def ko nee na mooy nga def loolu ba noppi boole ko yéene yéene ji nag mu ni munta feeñe ci lu loolee nga xam ne la suñ borom fee digal nga di ko def ndax yéene dafa doon loo xam ne day dëgëral rek waaye du ne mooy baasub jëf jëf ngay def yéene dëgëral ko waaye du ne yéene mooy dana taxaw taxawaayu jëf déedéet bunta taxaw taxawaayu jëf li mban mooy dëgëral jëf ak yóbbu ko ci barab kawe waaye mu doonul loo xam ne danga koy def ci sam xel ci sam xol kese mu doon loo xam ne mën na laa mën na la mën naa tax ba la nga bëgg a def def nga ko déedéet mu ne yéene kon mooy da ngay da ngay yéene ci sa xol ci ne fas yi da ngay am pas-pasu def lépp loo xam ne moom la suñ borom digal ba noppi ànd ak di ca góor góorgóorlu di sa kémtu lay kattan nee na li nga xam ne nag mooy bàyyi ay tere noo koy defee lan moo la ciy dimbali mooy di da ngay bàyyi lépp loo xam ne suñ borom tere na la ko ba noppi itam nag tere googee nga xam ne moom la suñ borom tere loolu lam la tere boo koy nga fas yéene ci sa xol ànd ak pas-pas ànd ak ànd ak itam ak ak góorgóorlu ci fas yéene bàyyi loolee nga xam ne moom la la tere doo ànd ak benn doyadi wala ngay ànd ak benn càggante ci li nga xam ne moom la la tere ba tax nga di ko def loolu mooy tax li nga xam ne moom lañ bëgg ñu mën koo am ndax yàlla moom mi nga xam ne mooy ki nga xam ne moom lañ mën a tëg suñ teg suñ tënk suñ jëf jëf yi di mën a dem nañ ko bëggee moom lañ mën a tënk suñu suñuy tere bay li nga xam ne moom la tere te loolee mënu tere ban di wéy waxtu bu nekk moom moom suñ borom képp moo ko mën ndax da xam ne suñ borom mi ngi ci bépp barab bu fekkoon ne daa nekk ci daa yem ci xam boppam képp tam loola loola doy na sëkk waaye da cee boole kenn ku nekk ci ñun am na ñaari malaayika yu mu la booleel yoo xam ne bii ngi sa ndey baggum nday joor bi nekk sa baggum càmmooñ loola maanuk suñ borom a tax mu def ko waaye xam na lépp waaye nag dafa bëgg lépp lu lu muy lu muy séq doomu aadama mu am seere loola moo tax moo tax suñ borom di wax ne wa ma rabbuka bi zallamin lil abid mu mel ni kon faw li nga xam ne mooy tax ñu mën a doxal li nga xam ne moo dox suñu diggante ci dox yéen wu rafet mën a bàyyi li nga xam ne itam moo wërta nekk suñ diggante ci bàyyi yéen wu rafet mënuñu ko teg ci lu dul yëg suñu borom yëg suñ borom rek mooy tax mooy li mu waxoon ne fa awaluha takallumun wa saani taarufun taaruf nag mooy yëg suñu borom mu doon kàddu goo xam ne Cheikh Mouhamadou Moutalla daan ko faral di wax nañuy yëg suñu borom nañuy yëg suñ borom nag yëg suñu borom rek mooy li nga xam ne moo nu mën a contrôler waaye bu loolu amul leneen loo xam ne mën nañoo contrôler kon yàlla mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ yàlla nañu dimbale ba ñu waxtu wu nekk ni ñu war a yëgee suñu borom ñu di ko yëg ni nga xam ne li nga xam ne itam mooy moo moom mooy suñu borom ci moom nañu suñu borom digal ñu di ci yëg suñu borom li nga xam ne moom lañu suñu borom tere ñu di ci yëg suñu borom ndax loola rek mooy tax ñu mën a bàyyi li nga xam ne moom la ñu tere def itam li nga xam ne moom la ñu digal yàlla nañ ko suñu borom jàppale ci loolu nag ndax moom rek mooy borom kattan te mooy borom sañ-sañ te mooy borom man-man yàlla nañu dimbali ci loolu ndax loolu mooy tax ba li nga xam ne bëgg nañ ko ci àdduna ak alaxira ñu mën koo am bu dee lu ñu bëgg la danañ ko am bu dee lu ñuy ragal danañ ci mucc ndax suñu borom boo dee ay ndigalam da lay jox lépp loo xam ne bëgg nga ko bépp boo dee boo dee mooy ay tere itam lépp loo xam ne ragal nga ko dalay teg tegg da koy teggil dala koy teggil ba dootu ci am looy ragal wala nga wala nga am loo ci nga ci amuk jaaxle kon mu mel ni li nga xam ne moo mën a dëgëral ak doomu aadama mooy ngëm yàlla gu wér yàlla gu wér mënut a feeñ ci lu ragal suñu borom mooy tax ngëm yàlla ga a wér kon yàlla nañu yàlla taxaw yàlla suñu borom sàmm yàlla nañu suñu borom defal li nga xam ne mooy tax waxtu bu nekk ñu mën koo yëg waxtu wu nekk ñu di ko dund ndax dundu suñu borom rek mooy tax li nga xam ne moom la ñu tere ñu mën koo def ñu mën koo moom dund suñu borom képp itam mooy li nga moo ñu dimbali ci li nga xam ne moo moom lañ digal ñu mën koo def li nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko digalee loolu itam mooy li nga xa dund suñu borom itam mooy doon li nga xam ne moo mën a dëgëral moo mën a téye li nga xam ne moo war a dox suñu diggante ñun doomu aadama yi kon nañuy dundu suñu borom te di ko yëg ndax loolu mooy li nga xam ne moo ñuy jariñ àdduna ak alaxira yàlla nañ ko suñu borom defal